di tàmbali nuyoo bi ci Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa di suñu borom yàlla na ko fi yàggal lool te yokk ak wéram yi nga xam ne ak naal yi mu naalal lislaam naanal ko ko ci coobaram te ànd ak jullit yëpp te naal yeneen yu bare ci barkeb Serigne bi naka lañuy nuyoo Serigne Sidi Mbacke nga xam ne moo jëw lañu borom bis màgg bu tedd bi ñuy waajal di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, ñu ngi leen di nuyu ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi lool te ba ay naalam yépp mu àggale ko ci lu kawe jortam te ànd ko ak mbooleem ay rakkam ak taalibe Serigne Touba yépp euh, di leen nuyu ci turu commission culturelle màggalu Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk lépp lu jëm ci ay waxtaan ak ay jàngale yu leeral njàngalem Cheikh Abdoul Ahad ak doxinam te jataay yi nga xam ne dana koy amal ngir waajal ko màggal gi bokk ci bii jataay di bi nga xam ne moo koy ubbi ñu yooyu yëpp yooyu yëpp nag ñu teg ko ci suñu kilifa yi nga xam ne moom la fekk si fii tey naka jekk mu yàgg ànd ak commission bi ci di ko yiir ci di ko taxaw ci fànn yëpp di yaatal ab liggéeyam di ko jokkale ak ñi nga xam ne ñoom lay seqal liggéey bi di asayida Maymuna Mbakke bintu Cheikh Abdoul Ahad kon soxna May ñu ngi lay nuyu fab nuyoo bi teg ko ci sa loxo di ñaar nga jàllaleel ñu ko ci sarak yu tedd yi nga fi bokkal teew muy soxna yi nga xam ne Cheikh Abdou Lahad lim na leen sànq di ñaanal bu baax yàlla suñu boroom bàyyi la fi lu yàgg lool te ànd ak wér yaag sa mboolem rakk yi yu góor yi ak yu jigéen yi cant yooyu nag ñu ci sant ba tey Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Serigne Cheikhouna ñoom ñi nga xam ne jataay yi bokk nañ ci ñi ko njëkk a dalal ñu soog koy andi fii ci sawet ñoom itam ñu jox ko yitte lool taxaw ñu taxawaay yu am solo ànd ko ak bokki taaliba yépp euh, kon soxna si commission bi day wax nañ ne amul sa fay ndax jamono ju nekk lépp lu ñuy dugg danañ ci ñëw laaj la ci rawatina ñi nga xam ne dañoo nekkoon ay wëllëre ak sëñ Abdou Lahad bëgg di jokkaloo ak ñoom nga dañu jokkale ak ñoom loola yëg nañ ko baax a baax a baax di sant bu baax e, suñu nijaay ni ko sëriñ Xaadi waxe sànq nga xam ne moo jëwriñu kër gi ñu toog di Cheikh Abdou Lahad Jaxate mu sëriñ Cheikh Jaxate mu sëriñ Xamsatu ñu ngi lay jot lim nuyoo di la wax itam li ñu wax soxna si rek yow it foofa nga ñu féete di la nuyu di la ñaanal say rakk yi topp ci yow yëpp sëriñ Xamsatu ak i rakkam yëpp euh, yow itam yàlla kàttanal la ba sa kër gi nga nekk ak sa mboolem yi yitte yëpp ni nga ko bëgg a taxawoo lépp yàlla may la kàttan boo ko defee ci barkeb Sëriñ Tuubaa Euh, di nuyu mbooleem ñi nga xam ne it wuy si nañ jataay bi di leen sant bu baax a baax ndax kaddu yi am solo yi nga xam ne suñu bokk yu tedd yi en nañ ko fi ñoom it leen jot li nuyoo commission bi ak nuyoo soxna si te mooy sëriñ Cheikh Mbacke Niang sëriñ Mouhamadul Mahamoud Niang moom it yàlla na fi yàgg lool te wér foo ko tuddee sa xel dem ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké eh, ak sëriñ Mouhamadou Fadil Boussa mu sëriñ Thierno Boussa rahmatullah alayhi wa radiya anhu sëriñ Xaadi Jaxate mi nga xam ne moom kenn la ci commission bi kàddu yi nga xam ne lajna bi tënkoon na ko jox leen ko ñu ngi leen di seeral ne am nañ ci lu kawe njort ndax lajna bi day def at mu jot day seet waxtu wu ne tolloo ak jamono ci loo xam ne suñ ko waxtaanee mu jural réew mi yiw jural ko jàmm jural ko barke ñu taaj ko ci taabal ji waxtaane ko te loolu saa yu ñu koy def daañu gis ne sunu jàmbaar ji ñu tax fii dana ci am waar wu rëy woo xam ne bay na ko ca loola moo tax waxtaan yooyu ñu koy lëkkale ak jëfam yim fi jëfoon ak wax yim fi waxoon ren ñu jël tam bu am solo bi di at taayus as silmi bayna tawaif al islami te mooy du ñu jàmm bi nga xam ne kuréel yi islam yi nekk ci senegal war nañ koo mën a dund ñu def ko ay pàcc yi pàcc ci négocier dañ si indee ci lenn lu nekk ci li sabab jàmm ci di ko woote ñu leeral ci leeral yu am solo yoo xam ne yaakaar naa ne àdduna bépp danañ ci jariñ kon nag li sababu ñu def ko rek ñu ngi ñaan mu jur loolee ndax kenn ku ne gis na ne ci at yi ñu wees wala ci weer yi coow yi bari na ci diggante turox yi wala ci diggante kuréelu lislaam yi tey ña koy def ñu ci bari ni ko sëriñ bi wax sànq sëñ Fallou Bousso la ci ëpp xëy na ñàkk xam la kon bu xam-xam dajee kàpp rek jàpp naa ne yooyu yëpp dana jeex ndax tomb yi fi waxtaan yépp kon danañ ko dund te bu ñu ko dundee jàmm dana am kon loolu rek mooy sawabu ñu def jataay bii kon loolu li ngeen ko jàllale macha allah leer na nañ ñi euh, kon duñ ci sori ci côté boobu ndax ñun suñu waru gara mooy jot leenu cant rek waaye suñu Abdou Lahad bisam yi lépp andi ko di leeral bu baax rek gannaaw bu ñu santee it euh, suñu mbokk yi journaliste yi nga xam ne ci moo ñu jàllale suñu kàddu yi ak fu mu mën a jóge ñu ngi leen sant bu baax ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne yéen koy taxaw ci suñu wet ci kàddu yëpp yoo xam ne moo xam ne ñu ngi dem taataan la indi ko wala yu ñu leen woo ngeen teewe ko yëpp yéen a ngi ko jàllale ni nga ko bëggee kon yàlla na yàlla dool leen kàttan yéen itam bu baax a baax euh, te yooyu mu bokk ci programme yi ñu def ci rojo yi yaakaar naa ne koy topp lu ëpp fukki rajo ak suñu mbokk yi ñu ngi ciy dem di waa commission bi ak ñi nga xam ne ñoom lañ koy àndal waaye mu bokk ci yi nga xam ne it yi ci gën a am solo la muy taawila mustadira bi mu jataay bu am solo yi nga xam ne mooy ubbi dëgg-dëggi màggal gi eh, ak yeneen plateau yoo xam ne incha allah danañ koy amal ci kanam ndax gaawu incha allah bi ñu jëm eh, war nañu am plateau bu am solo. ci kër sëriñ Abdou Lahad Mbacke gi ci gannaaw gee ci vingt et une ñu ci ànd ak Touba TV boobu it ñu ngi ci sàkku teewaayu bokk jullit yëpp ndax jotaay boo am solo lay doon rawatina ñi nga xam ne ñoo ko moomal seen bopp te mooy waa kër Cheikh Abdou Lahad Mbacke yi ak ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal Serigne Touba loolu kon ñu ngi ci dagaanaat soxna si mu jàppale waat nañ ci bu baax nam ñu ci daan jàppale ndax moom yëg na bàyyam lool ba lépp lu ñu def nag dañoo xam ne nun ngeen koy defal kon nag nun ñoo war a nekk seen wet ba tax na soxna yi ñëpp da leen daan dajale woo leen ñu ñëw teewal si bis boobu kon noonu ñu ko daan sàkkoo ñu ngi koy sàkkoo war tey yi eh, naka noonu it eh, talaata ci la ubbi exposition bu mag boo xam ne dañ koy amal fii ci bunt kër Sëñ Abdou Lahad bi ngir di fay feeñal lenn ci njàngalem Cheikh Abdou Lahad loolu bëgg nañ ko ubbi talaata ca ngoon incha allah muy bis bi nga xam ne ci la sëriñ yi di def seen conférence bi moom it ñu ngi sàkk bokk yépp ñoo fa visite ko ndax danañ fa jëlee njariñ naka noonu it at mu jot dañuy jël benn discours muy benn waxtaan woo xam ne Cheikh Abdou Lahad Mbacké defoon na ko ñu xool ci bi nga xam ne dëppoo naag lu bari thème bi ñu jël dana ca feeñ ñu jël discours bu jox ko benn borom xam-xam mu def ci ay jàngat ay leeral yoo xamante ne bii dana tax koo xam ne fa sëriñ bay waxee xay na mënoo ko woon a dégg suñ ko tasee leeral ko nga mën ci am yeneen dégg-dégg yu bees mu mën laa jural njariñ loolu nag ñu ngi koy def bu ñu suba la màggal gi muy àllarba ci ngoon gannaaw bu ñu sëriñ mu lay toog saan foofu it ñu ngi ciy sàkku waa kër sëriñ bi ci boppam ñu teewe si ko ak seen bokk yi ñu bokkal seen Tuubaa waaye di sàkk dawaayira yi muy daayira yi nekk ci kër gi mu ne kër gi mooy kër Sëñ ak fu mën a nekk fu doom Sëñ Abdou nekk daayira yi fa nekk ñu ngi sàkku ñu def ay délégation ñëw teewe si ko ndax wax ji bu ñu koy wax du caa gi nun ñii kese ñoo tax ñu di ko wax dañuy bëgg mu tasaaroo fépp kon loolu ñu ngi ci invité ñëpp ñu teewe si ko ànd ko ak noonu ba jotaay bi jàll Euh, ñu jox ko suñu mbokk moo xam ne yàgg nañu ànd ak moom jataay yi te saa suñu ànd ak moom rek euh, ñëpp kontaan ñëpp bëgg muy sëriñ Sam Bousso euh, moom it bokk ci ñi nga xam ne waaram mooy xam-xam ci toolu sëriñ bi kon sëriñ Sam Bousso lañ ci àndal te moom day ñu yàgg nañu ànd ak moom waaye xam nañ bu baax a baax discours ca bopp boo ko doon jàngale woon discours Sëriñ Abdul Ahad rek su waxee bàggal rek da nga ci jëlee njëriñ loo xamante ne macha allah kon nag ku bëgg a jëriñu la ci invité. Euh, kon loolu moo bi nga xam moom la commission bi tëral bisu màggal ba ñu ànd ko ak taalib yëpp njàngum alxuraan ak xasida euh, bu cérémonie bi jeexee it gannaaw gee euh, donga yi tarbiya yi xam ngeen ñoom it. ñooy dundal guddi gi ba mu bët bët set ci wàllu njàngam alxuraan ak xasida ak ci conférence conférence bu am am solo boo xam ne eh, tey danaa ko tudd ki leen koy defal mooy sëriñ Xaadi Jaxate mi incha allah moo fi fanaan ak ñoom defal leen waxtaan wu am solo sëriñ Abdul Ahad kon lépp loo xam ne amoon na ko yéene ci fii te jataay bi xat bëgg a dégg yi ci des ak yeneen ak yeneen na nga fa teew dana ànd ak ñeneen ñu nekk ci wetam ñu ko jàppale insha allah ndax bëgg nañ ku ñëw ci penc mi rek soo accès sa xol dund boo delloo nga jële fa njëriñ kon loolu moo doon activité yi nga xam ne mi ngi suñu kanam le 25 it di alterné doomi ndongo yi ñi nga xam ne seen i baay ñoo ñoo doon tërbiyu suñu Abdou Lahad seen doom dañoo jóg taxaw ñoom it ne magal gi dañ koy gàttandoo ak njàngoo alxuraan ak xasiida ak waxtaan ci sëriñ bi ka lañ ko defal muy sëriñ Mouhamadou Bassirou Touré mu soxna Tahira mu sëriñ Abdou Lahad kon loolu itam solo di sant ñi fi teew ñëpp daayira yi nga xam ne ànd nañu ko ñëpp di turandoo yi si sëriñ Abdou Lahad Diop sëriñ Thierno ay murit lañu yoo xam ne sëñ Touba rek lañu yaakaar tey moom lañu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Touba rek lañu ko def